mun nañ ma xaar ci lépp préparer saison 2 Virgin quoi ak projet yi nga xam ne mi ngi suñu kanam. Euh, loo xamante ne daf jaaxal est que yow da nga jàng aar. aar dafa nekk loo xamante ne genre daf ma dab daf ma dab en 2013 sama benn tonton jël ma dama dugal formation aar ma ci dem nang-nang ba actuellement ak li yàlla def ko benn benn casting laa defoon laa def après ñu woo ma kon la demee waawaa waaw si ñu ngi si gawam ñu ngi koy actuellement. non je veux man la je veux dire que man quoi waaw parce que man en classe boo xoolee jigéen ñi rek laa doon toogal jigéen ñi man parce que dama bëri ay kaf ay mbalak ay fo ay kaf ay que la mais je veux dire que parce que mun naa dox ci mbedd nii nga jàpp kii il est pas ouvert wala dara parce que c'est pas boo xoolee Flashka moo jiitu avant école wala ñu kaa def amoon ci école avant ñun boo xoolee jàngale ñu doon def jàngale bi parce que boo xoolee féere saison bi dañoo jàpp Flashka tëj ko boo xoolee loolu jàng na si lu bëri boo xoolee loolu da école yi stand by ko. non moi je pense pas je pense la parce que loolu noonu boo xoolee jeu rek la quoi. waaw waaw waaw pourquoi pas. dégg mu baax waaw waaw di ko ko jaale bu baax a baax parce que waajuram bu góor boobu noonu bu dul dara mos a benn yoon dafañ ñu teraanga bu ba bu mag borom baax la yàlla yàlla xaare ko àjjana suñu papa ju baax jooju di jaale Tine Ndiaye bu baax a baax a baax. waaw gis nga boo gisee euh, wax nga ko dara yombul si àddina te boo nekkee ndaw di jóg pour programmer dara surtout ma événement yu mel nii il faut nga pare si bépp fànn même bu la nit ñi jàppalewul sax yaa war a njëkk a jàppale sa bopp comprendre nga fu nekk nag dugg nañ fa dem nañ fu nekk suñuy carte suñuy loxo fépp fu mu jotul tamit bind nañ wala yóbbante nañ pour mu jot fa moo tax def nañ la tout ba xam nga euh, réussir si programme yi nga xamante ni tey jii moo waral lii taxaw fii dafay lu naaj ñëw waxaat fi lu naaj donc parce que dina war a show bi pareegul de booy dañ doon dugg si rek booy dañ doon dugg si rek sans plus tarder dañ leen di joxaat micro bi ñu continuer waa gis nga si confinement lañ jógee dëgg la mbas mi neewoon si dëkk bi umpalewul ñëpp xam nga ñu nekkoon si nag doon liggéey doon daas fanaanal affaire yi metti torop ñëpp tëju artistes yëpp tëju xam nga ñu nekk ay ndaw mu metti woon torop nag si ñun mais comme que génn nañ si alhamdulilah dontu kaayeb jeexul mais euh, bàyyi nañ ñuy rassemble teewul gars ñi ngi tax a masque xam nga juge juge juge nañ si loolu euh, lépp nag la nga xamante ni euh, mi ngi woon si confinement bi rek nekk lu bon la xamante ni tënkoon nañu ñi ngi ñaan yàlla mu juge fi mais après loolu ba mu jeexee gis nga. Euh, ban si ban si jugee gis nga nin taxawoo hmm. at gis nga nin defaruwaatee hmm. looloo lay won kon li nekk si confinement bi tëdduñu di nelaw ñi ngi si kawam di dóor waa ah? gis nga mën na leen bari parce que boo nekkee ndaw nekk si aar musique waroo yàqam di quoi parce que am na seen i grand ya xamante ni ba léegi nii ñi ngi si yoon bi di rampe te mënuñu am lu mel nii dañuy fekke lu mel nii rek mais nañu ko am mais ñoom bu nekkee fii nii di rampe nekk ay booyu ndaw di woote di teg di def suñuy euh, suñuy concert ñi ñi di ñu woyu si ku si mel ni tey presse xam nga di ñëw kon loolu sant yàlla la quoi instant bii dañuy gën a góorgóorlu di leen gën a ñaax rek. Euh, waa gis nga euh, surtout loolu xam nga boo bëggee dara boo bëggee dara il faut nga def dara ñoom ñoo génne seen moyen bopp sànq gis nga ñi ngi koy wax ñoo génne seen moyen bopp nit ku nekk nag am na ay nitam quoi il faut gars yi jàppale la ak ñoom ñi ñu yaakaar dem na si ñoom ñu conseil ñu jàppale ñu jox ñu mais li si ëpp solo